waaw waaw waaw dem na combat bi dem na combat bi dem ak Bat Signor Ngor bu écurie Tivaouane moo fi jàkkaarloo ak Bat Signor bu écurie Daara ji ba mooy cinquième combat de la soirée ah tey le dimanche tey le dimanche 11 décembre 2022 sama gars yi ñu ngi à l'arène la tête de la structure Jam Production organisée ak kan boobu jàkkaarloog Bathie Junior Ngor Bathie Junior Ngor Bathie Junior attention koy jéem a ronu Ngor da koo bëgg a ronu waaye andiwul Ngor face à Bathie Junior Bathie ji Ngor ci Tivaouane Peulh Junior Pacha Ngor ak Junior Pacha Ngor attention Pacha mi ngi dugal ay coup Ngor fàqe na ko attention daan na ko Ngor daan na ko Junior ñàkk na combat bi ndeysaan am na lu ko am na lu ko jël ko Ngor daan na ko Ngor bu Tivaouane Peulh daan na ko daan na Bac Junior ndeysaan Ngor daan na ko Bac Junior am na lu ko am na lu ko métti na ba dee waaye daanu na Ngor daan na ko jël ko mi ngi jël ko mi ngi Bac Junior bëri na ba dee waaye daanu na de Ngor daan na ko Ngor daan na ko Ngor bu Tivaouane Peulh daan na Bac Junior comme ni ma leen ko waxee tey le dimanche 11 décembre 2022 sama gars yi ñu ngi à l'arène nationale le promoteur jamaïcain à la tête de la future jëm production organisée waaw waaw ndeysaan Bac Junior ñibbil bëri nga ba dee waaye daanu ko Ngor daan na ko Ngor daan na Bac Junior